maye deret gaa baax na mais kan moo ko war a def. Ah. avant. merci soxna Fatimatou question bi am na solo lool. Mhm. bala may ñëw ci kan moo war a maye deret. Mhm. damay wax ci deret de manière générale. Mhm. donc euh, deret dafa nekk ci liñ naan yenn fluide corporel li nga xam ne. ñu ngi daw ci biir yaram bi. bokk ci ci ëpp solo. ndax am na luñ naan lymphe am na naan LCR. mais dret dafa bok ci nga xamne ne la nit ñi gëna xam mhm. te moy bi nga xamne ne ci upp solo mhm. nit ku nek am nga ci lu tollu ci adulte 5 ba 6 litres dret dret bobu nak am wax nañ ko légui ci reportage bi mhm. kenn mënu ko défar ci jamono ji ñu tollu te li nga xamne dañ ko sétlu ñu baree baree bari dañ koy soxla te buñ ko mënu ñu ko jëlé fenen fudut nit may leen ko donc ci loolu ngay gisee importance maye deret kon suñu ñëwee ci question bi kan moo war a maye deret mooy dañ ko jàpp ci nit koo xam ne dara jotu la nga am entre dix huit ba soixante ans maanaam fukki at ak juróom-ñett ba juróom-benn fukki at nga nekk koo xam ne sa poids na si juróom fukki kilo wala mu ëpp ko waaw muy cinquante kilos et mhm. plus mhm. mu doon loo xam ne acte boo xam ne bu ko nit ki di def warta ñëw rek gis ñuy maye deret mu ñëw ne damay maye mm-hmm. doonut ci lu ñu li ñu sopp ndax dafa nekk acte boo xam nit ki bu koy def daf ko war a préparer mm-hmm. moo xam ne man mi kat suba dama bëgg a dem maye ji deret mm-hmm. nga xam ne la veille day noppaluku nelaw nelaw yu doy bu xëyee mu ndekki ba suur dem maye ji deret d'accord waaw loolu mooy condition yi nga xam ne nit ki bu ko remplir war na maye deret waaw si loolu est-ce que nit ki bu ñëwee dafa am peut-être ay analyses yu ñuy def balaa ñuy jël deretam wala naka lay demee. su egsee ci hôpital bi. si nit ki bu respecté loolu lépp sax ba yegg si. Mhm. du ñëw rek ñu jël deretam. d'accord waaw dañ koy day ñëw ñu toog loo ko mu toog ba dal. ñu mhm. jël tension jël constante vitaux yëpp. Mhm. ba xool ne kii nii amul benn jafe-jafe tension yeegut anémie wut ñu door a nangu mu maye deret parce que santé li ci jiitu mooy.